tournée bi dañ fi ñëwoon ngir xool naka la suñu mbokku maire yi ci biir commune yi ànd ak préfet yi ak sous préfet yi naka la ñuy jëfee ndigal yi nga xam ne moom la président joxe ci wàllu wér-gu-yaram ak Covid 19 bi nga xam ne mooy mbas mi ñu jànkonteel li ci jiitu mooy gis nañ ne ñi ngi góor góorgóorlu ñi ngi jéem ku ci ne foo dem ñi ngi fay teg ndoxu raxasukaay ñi ngi fàttali population yi di leen yée ci lii nga xamante ne euh, ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla mu jóge fi waaye na tamit ci marché yi ndaxte gis nga marché yi ak bërëb yi nit ñi di daje fa ne feebar bi mën na faa jaar moo tax lu ñu def ci kër yi rek def ko ci mbedd bi dañ ko war a yokk ci marché yi looloo tax ñu ànd waxtaan xool ñu leen di félicité am na ñoo xam ne décidé nañ dimanche bu ne dañuy tëj marché yi waaye tamit décidé nañ képp koo xamante ne respecté aux règles sanitaires yi ñu tëj sa marché génnee la loolu la maire Wakaam def donc loolu lañu bëgg taxaw bu ko defee xibaar bi jàll ñu mën a aar population yi ñu xool tamit marché yi naka la ñuy def ba yeesal ko président joxe na ci ndigal tàmbali nañ ko ci marché Ziguinchor ci leen marché ñu euh, Euh, marché bi ci Diourbel euh, fii tamit Dakar am na ay marché yoo xam ne ñu ngi koy liggéeyaat waye dañ bëgg né bu wéso tabax bi naka lañ koy téyé naka lañ koy samé naka lañ koy gérer marché dafa war am gestionnaire am ku fa am baat ko xamné moy ubi di tej di digle di tere loolu bu amul rek ci aduna dara du dox. motax ñu tok nar a waxtaan ak ñoom ndaxte marché yi xam nga ñun rek néwuñu ci maire yi dañ ci am cër ndaxte suuf siñ koy def ñoo ko moom code des collectivités territoriales ñom la joxit baat ne ñom ñoy gérer marché yi ñun nak ñun comme état lañ li nga xamné mom le président bëgg ci set ak organisation. faaw ñu wax ak marché yi looloo tax ñu ñëw dugal ci suñu loxo andil leen xalaat andil leen appui institutionnel bi ci war ngir ñu mën a defar modèle defar ay business modèle yoo xamante ne bu ko tegee marché yi dina mën a dund yees set ba kenn du ci loru.